ayca jërëjëf euh, Abdoulaye Diop jërëjëf euh, Yacine Pouy jërë ngeen jëf internet ak auditeurs yi déglu RFM 94 point 0 ah la rajo de toute l'actualité wax naa ni démb ñëpp rek attaqué nañ ma ne ma ana équipe bi ana ASC bi may leen gars yi nag dañoo demoon Cameroun dañuy feetu hmm, euh, bi ñuy ñëw euh, indi coupe bi dañu faa bàyyi li nga xam ne moom la ñuy teg coupe bi Ndiaye moom la doon xaar pour mën ko indi ah jërë ngeen jëf kontaan nañu bu baax baax yéen tamit ay lion dëgg ngeen ñi demoon nag ñi fi toog nag 17 million de sénégalais yeeg sénégalais yi nekk à l'extérieur rek ñëpp rek ay lion lañu vraiment Sénégal am ndam et félicitations encore fois merci beaucoup jërë ngeen jëf Ndiaye naka nga def maa ngi lay siyaar. maa ngi lay delloo siyaar Ababacar. Mhm. maa ngi nuyu waa Sénégal di féliciter suñ bopp. Euh, la waaj a ñaan ñaan na ba xamatul lu may ñaan mu ne. yow yàlla yàlla laa lay bàyyil yàlla na ma la fayal. <laughs> dëgg la dëgg ñaan na ba xamatu lu muy ñaan mu ne yow yàlla yàlla laa lay bàyyil yàlla yàlla <laughs> xol bu féex mën na lu ne. xam nga loolu. la kii la yëf yëf ko laajoon. ku bég yëf yee ko laajoon. dama fee toog naan yow yàlla yaa ni ñu ñaan la nga ñuy may yàlla yow mi laay waxal xaw ma ndax yaa ngi may dégg Alaaji Asan ni ma waaye yow yàlla ngay ñaan wala yow sa maam ngay ñaan wala ma ne ko mais yàlla ni nañ ko ñaan mu may ñu dama tiit rek. Ah, dama tiit rek mais daal sant nañ ko bu baax a baax. nuyu naa waa Sénégal yëpp maa ngi nuyu passe partout. Hmm. sama waa ji. acca. maa ngi bu baax abaa. naka Cameroun passe. Ah, ah nice rek. gérer ko mbaa. Ah, gérer nañ bu baax a baax. ah mooy ne kuy dem guerre moom faaw ngay jonkonteeg yenn problème yeeg yooyu. ah non gérer nañ ko gérer ko ñàkk sant yàlla bu baax. Hmm? mooy problème da cee amoon. coono yeeg aéroport beek jël coupe beeg xëccoo beeg xam nga yooyu moom euh, coono munu cee ñàkk eh, coono ba mais yëpp coono coono xeeti coono. jaay nuyu naa la alhamdulilah xëy la. Mhm. leen daal xamal naa leen. Mhm. mooy nañu fonkat suñu bopp. dëgg la de aba. Ah, ah. mhm. boo duggee ci réew yu ñu wër. ba génn ah. li wolof di wax duma xas kenn daal naa tagg ku baax ba ku bon mere ma. kon lii ñu am nii te koy xeeb ak di ko soofantal. <laughs> la ilaha illallah. abaa dafa am lu suñu Sénégal gi. <laughs> néew mu mel ni réew bon na waaye suñu réew mi baax na. waa Ndiaye léegi nag eh, faaw ñu jéem a xuus tuuti ah, fonk suñu réew mi ak fonk autorité yi quand même. Ah. parce que am na lu ñu liggéey ci réew mi quand waaw ak fonk kilifa yi ñu am ci réew mi kilifa diine kilifa aada moo xam mais organisation bi ci réew mi parce que li nga wax ni Sénégal yëpp ñu demoon euh, ca Cameroun bi nu ñëwee loolu la ñuy wax. Mm-hmm. Mm-hmm. boo génnee xam ni euh, koo fi gënul gënu la. billaay bari nay réew ci Afrique yoo xamante ne ji c'est des forêts déclassées. laa ilaaha illallaah xay xeer. man moom kay nañu sant yàlla rek ba comme lu dëkk ba mel fa lañ amee suñu coupe. Mm-hmm. nañu sant yàlla. yàlla baax na li li li li Ndiaye wax nii xanaa xam mën noo nekk sama première parce que yàlla def na peut être si sous région am na quelques dëkk yoo xam ne dugg nañ fa. Mm-hmm. mais Sénégal saa yi faaw nga def pour gën a mën a fonk sa réew. Mm-hmm. ci côté yëpp nag. am nañ dëkk li li li li li Thione Seck daan wax aussi cest diir boo bëggee jëm ca kanam. Mm. bul xool ki nekk sa ginnaaw mhm, ki nekk ci kanam rek nga mën a xool ki nekk sa kanam fexe noo ko rombee mais mhm. booy geesu mhm. ñi nga wan ginnaaw après yow da ngay sa bopp sax da ngay tardeel am na solo Lions yi tamit indi coupe euh, ñu jox leen ku nekk cinquante millions ab paak leneen leneen leneen leneen lu ma dégg dégg naa ñi demoon seetaani coupe d'Afrique bi jël compagnie Air Sénégal tumuranke nañu sonn nañu torox nañu loolu moom dégg naa ko bu dee li ñu wax noonu la demee Air Sénégal def na jëf ju ñaaw ndax une compagnie nationale équipe nationale di football saw askan national soxla la nga wane cag yaafus ak ak mbon ak ak wayat bu fekkee liñ leen ndax ñoo ko def ñaaw nañ ci xare bi beneen bi topp mooy xëy na sama kàddu tekkiwul lu bari ci réew mi mais lii bu ko njiitu réew mi bàyyee mu jàll leneen lu mu fi waxat daf ñoo yem. ñu ngi jéggalu Ndiaye. ñu ngi lay jéggalu bu baax a baax. man man man moom demeewu ma Air Sénégal. koy wax. Eh, donc coono bi dégg laa am. mais dama ne li ma jot ci réaction. Mm-hmm. ay nit di woote. Mm-hmm. ñu fekk leen ci aéroport bu euh, euh, Yaoundé. Mm-hmm. ñu toog fa ñii fa la ñu fanaan ñii toog fa xamuñu kañ la ñuy dem. mbokki joueurs yi waroon dem te taxawu seen i mbokk ñu football ñu ne mënuñoo dem parce que li leen tee dem mi ngi jógee ci compagnie bi. ku ñëpp tuf li nga tooy. Ndiaye Sadio Mané dafay jël bal di ko contrôler dajeeg te ab góor ci kaw ñu mbëkkante. waaw match bi mu jeexee. waaw góol bi da ko fekk ci néegu hôpital bi mu tëdd. waaw ne ko ñu ngi jégalu Sadio mu baal ko. xam nga foofu li yàlla defee waaw bu ñu defee lu la métti Ndiaye ñu ngi jégalu ñun waa Air Sénégal ñu ngi jégalu yàlla def dafa am gis nga. Mhm. Sadio Mané hôpital ba fekk na fa benn xale bu accidenté mhm. boo xam ne la koy faj ay mbokkam amuñu ko moom mi mbëkkante ji ca terrain ba mhm. ñu gàddu yóbbu l'hôpital moo defi rajom ba génn yam gis mbokk yi tim booy bi di jooyoo mhm. moo fay la ko faj gis nga mbiri yàlla ba arbitre bi sifflé Cap Vert euh, Sénégal mhm. booy bi moto di ko mbëkk yàllaa ngi naan vingt-deux yi ci terrain bi kenn ki mooy dem faje ji ko donc nañu yàlla noppi nañ sant yàlla rek gis nga Njaay lu am nañ ko sant yàlla waaw ñoo ngi jégalu yow lu la ci waaw ah, ñun <laughs> man moom man loolu loolu ma jaaxal nag Ndiaye. Ah. man man nag ma. ñu ngi jégalu baax d' accord ci affaire ba ah, di na ne ñooma. <laughs> baax. ma ci Air Sénégal de. waaw ma ci Air wax nii ci affaire Sadio bii nii. Mm-hmm. xam nga dama xëy deux jours après gis ñu bind ko. fekk la veille am na ku ma ko wax bi ñu demee ci hôtel bi ci guddi gi. hôtel wu yi mu ma koy expliqué. mais bon pour man ay waxu mbëggeel la nii rek quoi. bi mu xëyee laa publication donc loolu aussi ci image yu te xam nga sax li tax lim ko jox toll noonu. parce que 400000 mm. la ko jox. waaw ki mu àndal la laaj ñaata nga yor. mu wax ko mu jël loolu. ndeysaan ndeysaan ndeysaan loolu la su ma juumul woon. am nañ fa kon est-ce que du liñ ko laaj yëpp est-ce que du woon ay quatre-vingt-trois mille xaw ma liñ laaj. xale bi ndeysaan kon bari nañ fay ndam. indi nañ ay ndam. macha allah loolu mooy ñun euh, loolu lañ ñu baaxee. Eh, loolu la xamee ah. yi nga xam ne boobu ba léegi. le pays de la teranga. waaw waaw mhm, la ñu xamee de fu ñu dem def fay teranga. daf fay jaloore ah, wallaahi wallaahi yal nañu yàlla sàmm. amiin yal nañu yàlla sàmm ba pare ah, nag fi ñu toll nii li président bi wax lu leer nañ la nee na équipe bii ñu am nii mën nañoo yóbbu coupe du monde ba demi-finale li ma naqadi nag ci ci xew mi nag li ma naqadi ci xew mi nag li ma wax de walla dem ba biir palais de la sàcc téléphone capitaine bi loolu naqadi na ma de waaw yow loolu day am sax ci biir kër gi nga dëkk dafay am biir palais laa la wax ñi ngay jox lekk di leen jox naan da nga ci yeew sa yëf réer te xam ni kenn ko ci jël loolu moom xam nga comme ni ko Mamadou Mohamed Ndiaye di waxee par exemple nga toog mu ne la ñii dem xaw ma lan ak ñi raas dem xam nga nee na wàcc na ci brésilien yu weex ñi ñetti yoon ñeenti yoon yéen sénégalais bi ma duggee ci yéen ci ngeen jël sama seen naan lii ñaaw na naan lii ñaaw na xam nga loolu ci brésil la woon nee man bi ma duggee ci bi <laughs> mais Aba benn waay laa dégg keroog mu ne kolobaan ngay dem jënd café Touba ñu sàcc café gi bàyyi suukar si gars yi nee nañ bu ñuy xola xola xolli gars yi naan booy jël coupe bi bu bu romb Colobane xam nga président dañ te ciy tooñ mais fi ñu doon xalaat muy Colobane dem nañ fu ko ëpp sécurité lu pire am fa wallahi non mais c'est grave c'est mais mais gis sàcc war naa yomb parce que palais du ko jug dugg fa quand même. non ah ba euh, ki teggi mbaxane Aliou biir mbooloo la ci indiscipline indiscipline mu weesu loolu. mbaxane nit xamoo lu ah, na nekk tamit xam na boobu am na bëgg ci Aliou amaana sax bu ko ñaanoon mu may ko. mais jëfin république ñi fa dugg ñoom ñoo leen fa invité sàcc bi génnul ci seen biir te sàcc mënul nekk autorité quand même. déedéet waxuma autorité dama ne ñoom ñañ fa invité. <laughs> ko nekk tamit. sàcc bi génnul seen biir. ah waaw mën na ko nekk de. ñaare wu noonu waxuma. ah baax na <laughs> non non naa ne ku ne sàcc daal mën na man daal ki ma ciy xalaat yàlla bu ko nekk. ki may xalaat ci càcc gi biir pale yàlla bu ko nekk. lii mën li ne sama xel mi ah. ah, ah. garaawul na muñ asakay cinquante millions yi la. Ah! <laughs> fu jëm. ay ci <laughs> partenaires yi ah yi sax abaa dañ leen di dañ leen di heureusement bañ dawalee compréhension xam ne. Sénégal la soxla woon moo mm-hmm. taxoon ñu mm-hmm. nekk ci mais ñi ngi leen di jéggalu bu baax a baax a baax ci li mm-hmm. xalaas amul démb amul bërki démb waaye noonu la mënoon a demee mais di leen remercier bu baax ñoom it ñi ngi bay seen waar bu baax a baax ñu ci mel ne Black Beauty nga xamante ne ji dañu nekk ci promotion bu am solo ñoom yàgg nañu ànd ak waa Sénégal yàgg jigéeni Sénégal yàgg leen a taaral ndax dañuy indi ay perruque naturelle perruque originale ay perruque de qualité di ko jëlee bu bitim réew yi gën yi nag ñëw di leen ko jaay ci ay njëg contribution bu bu remise bu toll ci 30 pour cent. Black Beauty moo loolu bu ngeen ci bëggee dem leen rond point JVC Sacré Cœur. Euh, numéro téléphone bi 77 653 44 48 wala centre ville immeuble Corsaire euh, rue Amadou Assane Ndoye 77 Optic Vision plus Sénégal ñoom it euh, promotion Coupe d'Afrique lañ nekkoon jeex na ñu ngi xool ban promotion la ñuy ëndalaat waa Sénégal yi mais ñoom saa su nekk ñu ngi ñuy gunge ak ay lunettes yu baax te garantie mucc ayib Optic Vision plus Sénégal euh, di def euh, social bu mat sëkk lu ngeen soxla ci ay lunettes wala accessoire lunettes dem leen ci boutique Optic Vision plus Sénégal yi Dakar Mbour Kër Mbaye Fall wala Touba wala ngeen wootee ci 33 821 54 57 33 821 54 57. Mhm. daa mel ci partenaire dama ci dégg café il faut que Adja Assou leeralal ñu ko faaw mu leeral ko kon faaw mu leeral ko dégg naa ci café ñu gën cee dugg mu gën a yaatu en tout cas daal pour ngeen xam ko mhm. lu ma xewleeti ci àdduna mhm. Collé Sow Ardo moo may ñëwal moo ñëwaloon Lions bi ñuy dem lu wala moo dàq ñëw ci réew mi ci début ba moo dàq ñëw ci réew mi nit Lions ku ne ñëwal na leen ñu dem indiwuñ dara moom mi leen ñu dem indi coupe moo dàqa ñëw ci réew mi maa ko wax Collé Sow Ardo yaa dàqa ñëw ci euh, vendredi yaa may ñëwal incha njaay table dafa des cinq nag des na cinq topp naa Lions yi ba mu des cinq table boo ma dimbaliwul ci njaay mi euh, dina des samay loxo de. man soxla naa ca. waaw table yi des na cinq table taable bu ne cinq cent mille la jar ndax billet bi cinquante mille la te table bu ne fukki personne la toog. des na cinq table topp naa Lions yi ba table yii mu ngi nii sama loxo la nar a des. King Fahd Palace kenn abalu ma fa dara mayu ñu ma fa dara sénégalais yi nañu ñëw jàpp ci li seen yëf la. ku ci jàppul te mën ko ah dinaa ñaan de. maa ngi ñu ñooñu table lay jënd xam nga yow ñu dem laa ko kii table lay jënd waaw na ma jënd benn table boole ma ci table ah kaay jàpp jënd table keneen du ci ci ci fukki table mën naa jënd table nag waaye fukki place yëpp ñun ñaar dong nga ciy toog dañ leen di jox lekk ak naan yéen ñun ñaar kese kay jaay xanaa meroon ba fii nga dox <laughs> lan moo xew ci wakaam nga ni Macky may na cinquante millions jours yi nag ak may leen ko de njukkal maanaam njukkal quoi. Ah, waaw waaw dañoo te mënoon leen may te mënoon nañ leen jox lu ëpp loolu. man dama ko sax xeeb na. Ah, li ñu fi dégg nga directeur nangam directeur sangam dafa jël xaalisu nangam 5 milliards la nu nëbb ci kees gee moom lañ jël ci kees gale te ñetti Sénégal mënuñu cee békk wala ñeenti sénégalais. ñii 17 millions de sénégalais la ñu wax ñi def déclaration ñooy 17 millions waaye ñi génn nii Ndiaye ëpp nañ 30. Mm-hmm. effectivement waaw ñëpp lañ bégal donc ñii luñ leen jox nañ ko xeeb te xam ne liñ leen jox am nañ ko jox ñeen luñ amul de lu ñu leen jox am nañ ko nanu xeeb lañ leen jox te gën leen a sasaar gën leen a kañ ñu demaat indiwaat fi yeneen trophée loolu man ci laa amoon ci la may wax leen joxoon dix tam ñu bëgg nañ mérité lu ne encore à Wakam indi la loo loo loo musaam Ndiaye hmm? Wakam tëdd këram di nelaw waa ji tëb ci biir këram premier étage tëj saagam jël caabi otom taal oto bi yóbbu Wakam waaw laan da xanaa ci final bi daa woon tëdd di nelaw ñu tëb sa kër jël sa caabi oto premier étage tëj saagam jël caabi otoom taal otoom dem. Hmm? waaw waaw wakaam yii. jë jigéen dëkk ñu wax. <laughs> nan euh, mi ngi am la nuit du 7 au 8 février entre une heure ak six heures du matin parce que ñu ngi nekkoon ci salon bi doon seetaan télé ba à peu près ay une heure ci lañ dem tëddi euh, sàcc bi dafa teg euh, échelle ñun on est premier étage premier étage lañ dëkk léegi foofu la teg échelle daal di jaar ci balcon bi dugg ci salon bi léegi moom liggéey ci salon bi fuyee na après ci couloir bi y avait mon sac mes deux sacs en fait mu ubbi ko daal di jël porte-monnaie bi heureusement il y avait pas une somme d'argent conséquente donc da ko jël après tas foofu pièces administratives yi carte d'identité yeeg et cetera après muy fii xam naa ba ibi tiroiru télé bi daal di fay fekk clé euh, benn Ford Escape suñu Ford Escape SE la matriculé AA 697 AD genre noir maté la donc foofu la ko fekk daa daal di koy jël boo xoolee lampe yi la sax lampalette la donc si la ko jël après taal oto bi daal di dem donc fay entre une ak six heures du la xalaas dégg nga kii Njaay waa yóbbu na yóbbu na oto ba déet oto bi moom du mën a sori ah oto moo ki sàcc téléphone Kalidou Koulibaly recherche nationale lay doon ki moom ko war a seet ba gis ko moom non moom kay day yàgg rek waaye dinañ ko téléphone bi moom war nañ koo seet ba dinañ ko gis moom Ford Ford bu noir la matricule AA 697 AD ba à moins que ñu yóbbu ko ci dépôt waaw entrepôt futti ko futti ko jaay koy pièce détachée xëy na bala ñu egg foofu rappelel kii bi matricule bi moom nga yor noonu waaw mooy Ford kii bi moom damaa xamul nag mooy mooy Ford yu rafet yi SK la waaw ma après dinaa dindi texte boobu ma jox la ko nga doo ci matricule yu kii plaque yu bees yi la yor. waaw dafa mel ni AA 697 AD. Famba ko moom de ah. Famba c'est ça. ci yàlla. noonu dala ko yóbboo yow yow yow Aba. Hmm. na la wax ndax Ford kii la titanium EcoBoost wala ban genre Ford la ñuy. am na wax wax na ko ci ci audio bi xam na man moom damaa xamul dara ci wàllum. ay ca fu ñu jëm gaaw wàllum oto yooyu. Ndiaye. Hmm. dañuy dem seeti Elimane Salif Wele. ca Qatar. wala ca Dubaï. ca baax hmm. da nga cee jotoon. <laughs> abaa comme ci wax football lañu nekk waa ji dafa dajale ay booy yu baree baree bare ni di leen di yóbbu ñu football wutal leen club xaw ma ligue un xaw ma ligue pro yóbbu leen ba Dubaay looy leen fa ñaari pantare encaissé seen xaalis ne tër bàyyi leen fa boo yaa fa lekkatuñu naanatuñu di fay pénalité chaque jour mujj gi dañuy raxasi oto ilimaa ca Dubaay nag xaw ma xaw ma fu ah astafurlah gisatuñ ko booy bëri nañ njaay bëri goo xamante ni xalaas gi fii ba coupe d'Afrique bi ñëwaat mën nga koy teg du jeex. Hmm? ñett lañu mais il kaaw Ilmaan la ñuy ko. nañ jëm dégg man en fait euh, Salif maa ko xamee euh, ci benn grand bu nekk euh, Sénégal koo xamante ñoo bokk koñ. waaw moom daal laa ñëwoon këram ñuy waxtaan noonu rek fii la ma voie bi na ma am na benn xaritam bu nekk au niveau de Dubaï. waaw agent bu mag la affaire yooyu quoi pour na benn photo jour na ma signaloon na ko wan ma ay boy yu entraîné ñoo xamante ne dañ ne ma ñu ci club yi baax yi na ma boo demee dama lay yóbbu ci club Ligue 1 yi ak Ligue Pro bi wax ay waxam quoi ba mu waxee loolu tamit moo woo sama benn grand bu nekk à l'extérieur expliqué ko ko après mu ne ma bu dee kooku la moom garaawul quoi mun nañ tenter après si dama naa joxe sama passeport waaw noonu la procédure bi commencé grand dugaloon leen moo ci xaalis bi parce boobu ñu ngi waxante woon ci deux millions deux millions lañu waxante woon deux millions yi billet bi si la bokk après grand bi envoyé moitié xaalis bi waaw envoyé moo ci xaalis ma jox ko waa ji nekk foofu waa ji moom ne moo koy transmettre ki nekk fii après leen jàpp yoon génnee visa bi affaire yooyu ma départ ñëw ba ma ñëwee moom premier jour ba ma accès ci appartement bi man damaa tiit parce que appartement bi xat na salte na xet bu bu bizarre moo ma dal ba pare li ma gis ci ay personnes ci biir appartement bi dafa bëri après si laa dugg si mu jàllale ma ci beneen néeg ba ci biir ma toog mais automatiquement man damaa découragé parce que lu ma waajee loon wax ak moom li mu doon wax ak man man gisuma ko dèjà ba may doog a par ma toog mënoo tamit agsi rek woo say mbokk leen lii fi am lii ma toog moom nag ni ma toogee noonu tamit yoroon naa argent de poche léegi man xaw ma ci dëkk bi kenn parce que dollar la woon ma ne ko na ma ko weccal waaw léegi mu ne ma léegi xaaral ma jox ko chauffeur bi mu weccal ma ko la ko quoi si laa ko jox xaalis bi boobu laa gën jot xaalis bi waaw après dafa ñëwaat na ma chauffeur bi dafa daw ak xaalis bi loolu la ma waa ji wax mooy Salif Wele dèjà moom andi na ma ci condition yi mauvais pare jëlaat sama argent de poche waaw léegi nag moment boobu mun ma wax dara parce que man maa bëggoon génn génn naa ñëw naa gis naa condition yi mu mel moom it mu mu sama xel na ma yenn jours yi dañuy dem ñi dañu fi nekk quelque temps rek affaire yooyu ko te ma jàpp ne looloo am waaw deuxième jour bi laa xëy booy yóbbu ma fu ñuy entraîner ba ma ñëwee takk fu terrain bi ñuy entraîner du sax terrain terrain benn club la fii mais club bi autorisé wuñu ñun ñu fay entraîner benn pukus la booy di daw nekkati après si laa ma fii yee fi am waaw daal si laa wax ak waa ji nekk Sénégal na ko man waa ji li mu ma waxoon loolu amul après mun ma defal nànk rek da ngay doog a ñëw affaire ma toogaat di xaar waaye troisième jour mu fi def tamit ma dundaat fi lu gën a bizarre loolu mooy troisième jour kër gi am problème mu lekk waaw bu gars yi bu ñu xëyee duñu lekk balaa ngaa lekk deux heures trois heures du matin la jox lekk waaw comme si que prison nga nekk boo lekkee tëddaat parce que boo dama gis booy dañuy nelaw rek man comprendre mu ko waaw nekk de booy nelaw gu bëri gi ñàkk lekk bi la après daal affaire bi noonu la demee mu jël ñu def ñu yóbbu si ay club club ñu yóbbu moom ay club amateur la ñu yóbbu ñoo xamante ay ñàkk lañ comme ay ñàkk yoo xam ne dañuy tase waaw après gis na jour boobu tamit ba ñu échauffé wu mu foto ñu ba mu ñu photo sama xel dafa ñaaw na kii lan moo tax suñu échauffé wu rek muy làqtu duñu photo fekk boobu day jël foto yi envoyé ko say famille pour ëllëg lu am mu ne booy bi defoon a test waaw ci laa comprendre loolu mu def ko benn ñaar mu tëggee masa entraînement ak ay club tamit ñoo xamante ne nii ay club ay mun naa ne club la sax fii mais ay club bu amateur lañ ay ñàkk yaa fa nekk te moom waxuñu woon loolu ba nii ba suba ba gannaaw suba ba grand bi du mu koy yónnee xaalis bi desoon ak sa diggante ak moom te gannaaw bi waxoon naa ko mais gannaaw bi def na moom moom jullit la te du lekk ak te waxoon na lii lay fay moom dina ko fay gannaaw bi mujj leen fay léegi mooy xaarloon na ma léegi dinaa la yóbbu ci club pour un mois waaw mbir mi noonu la demee ba tey ba suba ba gannaaw suba yóbbuwuñu waaw effectivement après si la am problème fii ak ak kenn si gars yi fii ko xam ne dafa jëloon xaalisam kooku andi ko fi problème da ko fay si la génn appartement bi dem yoonam waaw boobu ba léegi nag dañ koy message duñu tontu dañ koy vocal duñu tontu waaw mbirum daal noonu la demee ki nekk Sénégal ku ñu booloon ak moom tamit buñ koy wax mbir mi mun naa ñu ay xaar leen nag ay mii ak ay dëkk bi boo fi sa jeexee fan boo fi def da ngay fay 17000 da ngay dugg pénalité am na ay booy yi mu nekk am nañu ay pénalité 4 ba 5 millions am na ñoo xam ne ñu ngi ci ay pénalité 500000 tamit waaw Dubaay daal boo gisee man ma bëgg ñu dénoncé waa ji muy comme jeune sénégalais yi nekk foofu buñ déggee turum Dubaay moom bu ñu ñëw fii du dëkku football te gars yi fi ñu nekk ay dóorkat lañ te ay sénégalais ñoo koy def seeni rakku Sénégal. xalaas. cey football bi dégg nga ko Ndiaye. ma ne ko cey football. booy dañoo bëgg tekki rek. non mais nit ñi dañ fi gën a jël futbal nag. ah ñoo jël coupe kay. Elimane mii nag. xam nga dèjà booy bi moom ba mu eggee la ko Elimane njëkk dóor. Mhm. parce que dafa dem yore xaalis bi mu doon wecceeku Elimane jël xaalis bi génn jox ko benn taximaan ñëw ne ko taximaan xaalis bi. foofu la mu jëkk a dóore waaw Elimane nag dañ ko contacter mu def lu garaaw ci diggante bi parce que lii ni avant final bi la woon bi ma ko yónnee élément yi Elimane mhm. liir ko pare tontuwul ma woo ko deux fois trois fois jëlul ndeke Elimane dafa génn dem biir Dubaay Elimane mi ngi biir Dubaay ba léegi mhm. jël ay booy Sénégal yi fa ne yoo xam ni liggéeyuñu Elimane mhm. fay leen xaalis pour yóbbu leen ci benn terrain dafa leen video pour ñoo ñu wax ni ñoom Elimane moo fi indi am nañ club et tout yàlla dogal ci booy yooyu mu jël. am ci kenn ko xam ne daf maa woo wax ma leen Elimane def loo hmm? parce que daf ma woo moom muy expliquer beneen waaye bi mu taxawal naan ko euh, waa booy dañoo dem xalaas booy bi dégg ko woo wax ma ko. ci xalaas bi. ci xalaas 157 17. waaw woo ma expliquer ma leen Elimane def booy rek yónnee nañ ñu photo yeeg yëpp nekk dañu doon dugal ci benn terrain rek photo leen fekk bu leen di photo booy duñ ko yëg dañu yóbbu comme jouer match amical yooyu noonu Elimane li mu yóbbu ci xaalis booy mat na ëpp na 40 millions. Modou Mohamed Ndiaye nee na boo génne ci sous région wala nga dem Afrique suñu réew mi da nga koy gën a jàpp. billahi mais boo déggee fi yi fi am da koy gën a bàyyi. dafa metti lu mu avancé triant na ko. non triant yii bi la abaa triant man laa xam ne sénégalais gi ñu naan dañoo mën a ñaan mënuñoo ñaan ñun. eh mënuñoo ñaan. mais kon Ndiaye ñun alhamdulilah de waaye yow rabbil alamin sax tey. <laughs> Aba. Euh, ay Bénin ay Côte d'Ivoire yëpp jaar nañ fa. Mhm. xam nga jamono buy dox fukki at ak lu te ginnaaw bi. <laughs> da nga yaakaar ni ay changement am na. abaa nañu fonkaat suñu bopp. non <laughs> gis nga bi match bi jeexee ñu ne capitaine bi na président ba munta wàcc. Mhm. pour joxe trophée bi. Mhm. loolu boo ko déggoon Sénégal am tukki. <laughs> moom toogu fa 30 ans. moom am na 80 ñaata. am na ñu nekk ci réew ma nee na dañ toog atum yàlla duñ ko gis. mais gis nga bi Kalidou di yéeg. Youssou Ndour da jolle ci stade ba. Hmm. fa la nit ñi commencé di daan. ay sag ah. bi Kalidou di yéeg di jëli trophée ba ngay dégg ay foo dégg Gaynde Njaay mbara wàcc la ah, ah. ca la ca la émotion yi yéegee. ndeysaan ndeysaan ndeysaan. dégg naa kenn mënatul ndax kenn. Eh? ku ne di jooy. mais boobu ku jooyul woon. est dégg naa waaye yow sama booy bi demoon mm, mm, ñoo Ibou Diagne ñeneen ma ñoom. c'est cinq xaw ma six. nee na ku ne da ngaa sëgg fa nga sëgg rek ne teg foo toll digg. <laughs> ay gor ngeen. ay gor digg ngeen laa dem di seetaan <laughs> xam naa fi mu mujjee. Eh, mais Ndiaye loolu kenn attanu ko. Eh, Ndiaye loolu kenn attanu ko. Ndiaye Youssou Ndour ba mu wayee euh, Arena. Hmm. ba lu mu bëgg a way public bi way ko. lu mu commencé way. public bi yeggali ko bu noppee public bi ne ko yaay seen baay loolu yuusu attanu ko mhm. dafa craqué waaye nag Ndiaye imaginel nga xam ni 17 millions de sénégalais wala 18 millions lii ngeen yóbbu bu ngeen ko yóbbu réew ma ñëpp craqué Ndiaye yaay njëkk a craqué quand même dëgg rek nga wax non non non mais c'est kay sénégalais te non espion moo tax nag dafa yaa na ko luñ leen na ko euh, Ndiaye lii da laajoo moom ko jox duñ yeggale Elimane ah. déet Ndiaye bii du fi xaj. non bii du fi xaj Ndiaye pour rek. déggoo man la Coupe d'Afrique deux mille deux mille bii ñëw la. Ndiaye dañu essence te lu neex def. champion eh Coupe d'Afrique bii ñëw ban la. deux mille vingt trois bii la. deux mille vingt trois waaw. Elimane mi chaque boo ko doon teg bu deux mille vingt trois ba jëm te du moom dong de ñett la ñuy wax ay agent la ñu ci Elimane la ñuy kii après suba ñu ñëw ci ñeneen ñi. yow kaay kaay El Hadj Guèye. comme da ngaa ngi tudd Thierno Guèye ma nga 323 29 23. kaay yow kaay kon da ngaa ñàkk kaay nga boole ma ci falaas Ndiaye entrée am na benn benn ku ne ku bëgg jënd benn da jënd benn 50 000 77 ngay woote 177 03 03 wala 77 177 09 09 par Wave sax mën nga ko mën ngaa fay par Wave. 635 63 eh, eh, kii yow kii eh, kii kaay def falaas Yacine Pouy rek.